ah kuli fajrin muy euh, euh tey tay lañu am fi euh, ci li nga xam ne moom mooy 8 mars ah, ñu fas yéene ko def muy 8 mars national pour naboudage ñu fas yéene ko andak ak moom national waye man ci dirais même international ci ce national ci tout belle macha merci beaucoup merci mon ami mon frère euh di nuyu sénégalais yépp di di leen nuyu ñoom ñëpp ci sen tour ak ci seen sant de souhaitait souhaiter surtout aux femmes comme aujourd'hui c'est le 8 mars de souhaitait euh, une bonne fête euh, de la femme voilà dit contente, Tu vois mm. cette 7TV tu vois visions. voilà tu vois visions. voilà tu vois Dvision tu as a waaw yéen a ma fekkoon sama sama sama kër yaay Nous defoon spécial tabaski donc tey ngeen fait quatre mi fait ci Kër Massar si spécial 8 mars donc, euh, disons que la des visions d'alcan c'est important, c'est avec eux. <laughs> voilà. -hmm. Voilà. -hmm. Mhm. Mhm. Euh, mhm. Donc aujourd'hui, c'est une journée très spéciale euh, parce que euh, je suis avec mes filles, avec mes employés, je suis avec ma famille. Donc disons que c'est une journée bo ramener je suis avec des femmes braves. Mo ñi may mes filles, je suis ma voilà, moy mon entourage. Donc tay mom nos journée là, c'est à nous quoi aujourd'hui, c'est notre journée à nous. Voilà, et je souhaite euh, une bonne fête euh, de, la femme à tous mes employés, à ma famille, à mes proches, vraiment à toutes les femmes du Sénégal. Voilà. Uh-huh. Euh, en fait, il n'y a pas que le 8 mars pour célébrer la femme. Pour moi, la femme, elle doit être célébrée tous les jours. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, Jigen Bodugé ci biir bureau yi ñun la boo école yi ñun la ci pharmacie yi ñun la dispensaires yi hôpitaux donc la femme elle est partout donc je pense que tous les jours nous devrions être à l'honneur voilà mais comme euh, les tests l'ont dit c'est le 8 mars nous nous mais moi je me dis que ku nek mën le 8 mars voilà mais quand même dañuy garder son 8 mars teg ci chaque jour nous dund 8 mars <laughs> voilà effectivement. -hmm. billaay dëgg la. dëgg la. waaw donc Pod. c'est une très bonne question euh, di leen naan nag euh, jigéen amul une qualité requise maanaam nekkul lii wala lii li gëna bon ci jigen moy yaafus waaw yaafus la ñuy ban ci jigen mais lo mën def ak fo mënti nek nga tek ko ci liggéey tek ko ci teel xé xëy wacc tek ko ci ask donc ñun on te on te pas ñun sax mais c'est-à-dire que tu es une femme qui doit être mise de l'avant parce que tu encourages d'autres femmes aussi à ne pas se laisser faire voilà donc tey si àdduna bi toll ak si li jigéen ñi mën réaliser on parle de réalisation tey Pod les femmes sont partout boo duggee ci BRT bi da nga gis ay jigéen ñoom ñoo koy yor ligne BRT yu bëri jigéen ñi ñoo dawal nga ci terre bi nga ci avion yi donc les femmes aujourd'hui sont même ci mécanique bi ñu ngi ci biir kon aujourd'hui jigéen amatul limite nekkatuñu lii la ñu war a def lii la ñu war def non dañoo war a takk suñu tuwee xar xam nga ko am ko ko et puis ko si vraiment kenn duñu fa fekk nañu donc man je reviens à dire que jigen du dafa dafa wara té te xaar ci kenn voilà di profité aussi di di massaw sen euh, confrère wa à tv ak le dal Ndour voilà c'est une femme tey mi ngi noonu en tant que journaliste liggéeyam euh, natou dal nako fa ñu ngi koy mastawu bu baax di mastawu ay proche di ko mastawu mom ak ay mbokam di la wax ni Pod jigen dafa wara am geud gëdd ñu 8 mars rek lañ obligé wara jël jigen sagal ko sigil ko non jigen dafa wara am geud et je viens en ça sur les violences conjugales dafa bëri ay violence. voilà. international mhm. mhm. mhm.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 donc il y a un problème. Donc je pense que la population est oppressée. Voilà, euh, quand j'ai vu la vidéo avec le sang qui coulait, honnêtement, ça m'a les vidéos. Voilà, ça m'a je me suis mise très mal pour elle. Voilà, a vraiment une, une, une, bonne santé. Voilà, et voir aussi que euh, Jigen, euh, Jigen, dafa sonn ci fii ci néegu sëyam dafa sonn ci ci ci ci ci ci ci ci kër baayam dafa sonn ci bërëbu liggéeykaayam dafa sonn en général tey boo leen amul yërmande si ñun jàppale ñu tette ñu xam nga taati giñ ñu bu ñu juumee ngeen gindi ñu dafay gën a metti góor warta taxaw ak jigéen di xeex ak di ko saaga sax rawatina di xeex ak moom ba dem di ko jam voilà. voilà euh, c'est une très bonne question li nga wax je pense la dernière interview qu'on a fait dama la assistance à une personne non assistance à une personne en danger Sénégal fait fekk bar. Taïli li dal Maimouna dañoo le côté politique teg ko ci suuf jël jigéen bi mu nek jiital ko jël yaay bu mu nek jiital ko jël ni que mënoon na tay def lu bon lu nek mais defuko dafa opté liguey nek journaliste ba ñepp rañé émission kon tay koku waron waron nañ am benen taxaway ci moom lu li ko dal nii te effectivement à part la presse amul kenn ku jóg amul benn mouvement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, man, Naboudage, en tant qu'une personnalité publique, j'ai eu des moments de faiblesse, mais je n'ai vu personne, aucune femme. Aucune femme, c'est-à-dire que nous sommes contre nous, mais nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes mais nous parce que si nous même si beaucoup de convictions politiques, même si beaucoup de sérieux, même si beaucoup de sardines, mais tu as vu des gens qui ont des que di semblant c'est pas un semblant en fait je me dis que voilà voilà Mhm. voilà euh, c'est parce que je me dis que euh, on n'est pas solidaire entre nous voilà nous sommes pas solidaires et aussi ku ci qui sa morom ni que voilà yow y a connaissance en fait top bi ba perte sensible amatuñu sensibilité nit dina am non elle fait ça pour de l'argent nit mën na ñëw ñaxtu ñu ne ko non day def lii pour xaalis fekkante ni li muy wax dëgg la donc yërmande amatu fi te yërmande fu mu amatul rek ci jigéen la ndax jigéen mooy yërmande. donc ñun ñooy am ñun ñun ñoo war a euh, xoolaat suñu biir ñun ñoo war a joxantewaat loxo xam ni que euh, nous sommes des femmes et que au-delà de nos différences on peut s'entraider on peut se comprendre on peut se tolérer parce que kenn matul nul n'est parfait mais discuter échanger aujourd'hui li un point Mohamed unir Sénégal mais on a vu aujourd'hui que malgré ça on a eu euh, des des voilà ku et c'est malheureux parce que les dal aujourd'hui personne n'est à l'abri donc j'espère que euh, l'État fera ce qu'il faut et que les autorités compétentes feront ce qu'il faut faire. ko wala ki ko defit mm-hmm. suñu violence ouais. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. ci ci ci <laughs> dëgg la woon nabu ko bu ma la seetsee su ma jëloon ci nga nekkee ci say nga nekkee en état dëgg la waaw ah, Ahmadou <laughs> dëgg la <laughs> amiin amiin amiin amiin mm. nga waxoon ma eh, léegi fi toll nii damay dëggal ci wal donte ne yaa ngi ci woon mais dañ ko gën a defaat ah ñu jékki-jékki gisaat la ngay defaat ñu dem ak reproche yi ñu ñuy def euh, nabu fu ñu toll nii lan Sénégal soo nekkee ci mbir mu jig la nga ci ciy suturlawu dañ la koy euh, du ñëpp nag mais certains dañ la koy xaw a iñaanee tey soo gisee benn journaliste ne ko bàyyil télé loolu mooy journaliste bi bu lekk bu naan. Ah so qui ben yu walé sék Youssou Ndour né ko non bul tëggati ben animation mu ti ben soirée euh, lol moy euh, bu lek bu nan euh, raflé exactement <laughs> donc nit ki doo ko fekk si si si liggéeyam. naan ko ni nga ko wara défé ni nga ko wara défé ni nga ko wara défé pour quelqu'un qui est dans les médias depuis 2010 boy djoum ci sa liggéey ngay juumee donc après 10 ans 12 ans 2010 ak légui c'est peut-être 14 ans donc après 14 ans si je suis amé ben faux pas ça se comprend parce que je ci mécanique je ci électrique je ci plomberie dama juum ci sama sama sama sama cercle de communication. non bon disons que xam nga euh, tole du yem ci ne faut pas da ngay takk fa fakkastalu dem surtout boo nekkee une femme de mes gens mais après da ngay am un moment où xamné ressaisir tu reprends les choses en main nga xamni que erreur mënul ñak peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées

c'est vrai que mhm. euh, sama yaay c'est une femme boo n'est pas dans les médias mhm. mais il comprend elle comprend que sa fille elle est connue et que des fois mon am avis ne c'est pas partagé c'est normal mën naa ni ñëpp à gauche ma waxee droite parce que sama xalaat laay wax pour ma la masse may wax li ma donc forcément dina am des accords. mais ma mère c'est une femme forte parce que dom ja euh, gaine de gaynde du jur muus sama a gaynde la waaw ah, là, ah, la de là. <laughs> Ah, donc gagné du jour mousse. amana peut-être mon ni mu mel mais man je suis son reflet je suis le reflet de ma mère bien vrai que c'est une femme très discrète mais bon euh, voilà le plus beau dans dans dans le dans les médias euh, pote mooy nga nga nga assumer nga assumer c'est c'est say euh, nga assumer comment ça s'appelle nga assumer ce ce, sa taxawaay assumer ses, ses pensées assumer ce, ce, say idéologies xam que l'unanimité mënoo ko am ñëpp mënuñ ma bokk bëgg. Sénégal yi ñëpp mënuñ ma bëgg Thione Seck daan na wax ni buma ñepp ñëpp est-ce que dina ma jig ñaanuma yalla ñepp bëgg ma. loolu gënul ci man voilà. da nek référence bo xam fi lay wax. Mhm. Euh, ci jigéen ñi nga xam ne tuddee nañ la ay influenceuse

elles veulent tout lépp dañ koy dañ koy xaar ci nit mais ki tal jël live am tal ko pendant huit heures de temps di wax di jaay ay produits di waxtan di fexé am ay sujets yo xam ne intéressant ba nit ñepp ci di ci connecté wu diko xol koku elle a le mérite ndax man dama xamna ci réseaux sociaux ci jaay ci réseaux sociaux yi donc des fois da ngay obligé sax la sa vie privée pour attirer attention bi loolu champion rek moo koy def man je suis de tout cœur avec elle

Non, non, non, non. Honnêtement, man, on pas de problème avec personne. Honnêtement, j'ai pas de problème avec ces gens-là. Non, non, non. Non, non, on n'a pas d'affinité. Nous ne sommes pas amis. Voilà, nous ne sommes pas amis, on n'a pas d'affinité. Mm. mais man peut-être malchance bi limité fréquentation voilà je fréquente pas beaucoup de gens mhm. et euh, xam nga boo demul si nit ñi rek kenn du ñëw si yow. voilà man mom je suis tout le temps ici avec mes filles avec ma famille comme ni nga ni nga ñu fekkee nii rek. voilà man je suis pas trop euh, disons que je suis sociale mais très antisociale à la fois. voilà. Mm. Euh, Nawda je suis international. <laughs> Uh-huh. ba tey ci émission bi gis nga mm. ni ñu commencé di dévoiler nak tay ñu naa leen dañuy waxtaan ci baax baax ci nga xam ne moom mooy. 8 euh, mars bi kay ci jigéen ñi ak yenn ñi surtout mom mm. dañ ko fekk fi ci. fi nga xam ne mooy daal store. Mm-hmm. donc fii bu yàññ bi. gis ngeen ko mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. Euh, dañuy ñëw ci loolu. Euh, naka nga def ba réaliser. Euh, xaaruñu woon fii. <laughs> da nga dañu bett. Sénégalais. parce que pour ñoom di nga di nga toog. ci ci live rek ngay toog. tegaat say affaire dinaa lii moo baax a nangam ak nangam. mais bii dañ leen ñëw bett leen ak boutique bu spécial. boutique bi man maa ngi ci gis lu ne. yaa ngi tissu. am na ay cuuraay. Ah, ah.

projet def secteur si banlieue bu nek ma def centre commercial donc projet bi lolou la won ñu tamalé projet bi mm, actuellement ñu ngi développé entre Tivaouane pour et donc dans toutes les grandes euh, communes de la banlieue dina am un centre commercial wedding store dash closer pour ñom voilà parce que euh, passe dafa metti te bi neexul donc dem Dakar fay taxi 10000 aller retour péage bi ni c'est vrai que ak péage ya amna proximité ah, mais suma ma dal li am Dakar ñi nekk banlieue am ko. d'accord moo tax mm. def ko fi ci département bu Kër Massar. Ah, ah. ndax Kër Massar euh, département la. Mm. te euh, yaatu na ginnaaw loolu macha allah. Mm. ma nga commencé ci yëppal noo. Mm-hmm. ñëw ba fii. Mm-hmm. kon lolu département bu rëy la. dëgg la. Mm-hmm. ba nga métti woon na parce que fii maa ngi ko jënd en 2017 voilà donc yàgg naa ko jënd fii sama kër la waaw. Hmm. <laughs> indi na ay werante xoolal kër googu nga ñëw woon boobu laa may sama yaay boobu laa ko may boobu moomu ko ndax may naa ko ko waaye bii maa moom mi ngi bëgg a bëri de macha allah. ci ci li ñu wax. tey su ma la seet kon war naa la seet. ci 8 mars bi Mhm. Donc, euh, ça n'a pas été facile. Euh, c'est il y a beaucoup, il y a une grande histoire derrière. tu Sonona, surtout tu vois, ramener. Euh, man mon bâtiment, mais je suis en ça m'a passion bâtiment. C'est une passion, de mon bâtiment. Tout le temps de mes rôles, les dernières technologies, les dernières euh, maisons modernes, inspirées où, voilà. Et peut-être que loolu ma defal sama yaay moom mon jox amour tey ba ma réaliser les nii te honnêtement man jàpp ma ni sax les lu rëy la parce que bëgg machallah comme ni ma la chaque commune chaque région chaque recoin et partie de Dakar am fa sama benn centre commercial loolu mooy sama objectif kon nit ki bu dee dix mooy sa objectif soo amee benn rek doo tëb ne voilà c'est gagné donc dama gën a dolliwaat courage faire le farluwaat gëna a nelaw parce que tay ne amna li bref c'est fini tout est acquis mais des waaw voilà Hmm. Voilà, donc ça n'a pas été difficile, hein, parce que la zone euh, Kermassar, Rufisque, une zone c'est une nouvelle zone, mais très habitée. et surtout fi ma ni ni euh, Almadi 2 nga xam euh, ñi dëkk donc euh, vraiment c'est une zone boo j'invite tous les Sénégalais à venir découvrir voilà faut luxe il faut am personnalité ay responsable ñu bari fi lañ dëkk ay kilifa yu bari fi lañ dëkk mm. waaw mm-hmm. Mm-hmm. oustaz Pape Anne y a plein d'hommes d'affaires yu dëkk fii ñoom Salif Keita DG Salif Keita DG Cices fi la dëkk donc bëri na fii ay directeurs généraux ay kilifa vraiment yu dëkk zone bi voilà. Mm-hmm non non voilà Je nga que je des dama appelé à Massar Si ma un complexe. fii ku fi dem banlieue molo molo molo ki, molo ngemb fi fi ngemb rek banlieue molo ngemb voilà parce que Dakar mais peut-être am complexe wax fi nga dëkk wala guest fi nga dëkk ñu Dakar man ma def fi millions parce que R plus 6 n'a 100 millions ou 200 millions. du 300 millions moom waaw. waaw non am na ñu ne sama ginnaaw. waaw am na am na ñu ne sama ginnaaw <laughs> am na ñu ne sama ginnaaw na ñu ne sama ginnaaw moom waaw loolu moom am na ñu ne sama ginnaaw xëy na man maay def bruit bi nii rek mais am na ñu ne sama ginnaaw moom vraiment uh-huh. mais les hommes de l'ombre voilà ñoom daal c'est des hommes de l'ombre uh-huh. moom rek laa mën a wax. ba tey xam naa ne dañuy ñëw terminé. ñu gis ne vraiment ci na solo. xam naa ne ñu a. ñu a moom voilà tout d'abord je remercier euh, M. le maire le maire de le maire de Kermassar, ah euh, DG euh, Salif Keita d'où toutes les autorités de la place. De ma sœur Tchane euh, de monsieur le président Biramagnan, hein, de vraiment toutes les autorités, de nous, préfet sous-préfet vraiment. Et vous dire que je suis en très bonne relation avec toutes les autorités de la, du département de Kermassar. Nous sommes diiné dîner, nit ñu bar, nous am yité, ñu mën sen nit. Honnêtement, aussi de nous, toutes les femmes de Lebouguide 2, filles, de l'Ebouki voilà c'est les deux 2000 la bokk donc di nous les femmes de Almadies 2 yep ndax mënoon fi ñëw def sama li kenn bañ fi ñëw ñu sofal ma mais wallahi xolal ku ci am lu ndaw sax fi ngay daw ci non dañ si gis sen bop man ñom dañ ma bëgg kenn dematul fenn bu ñu wax ñun ak ah, demal ci nabu ñom ñëpp fi la ñuy ñëw. waaw amuñu complexe du 5000 du 10 000 ñom ñëpp elles sont fières de venir ici voilà donc man je suis fière aussi parce que mon naa fi ñëw mu demee neneen donc delloo nañ ma la monnaie de la pièce di leen sargal ci 8 mars bi alpha les femmes de Almadi de ñëpp ñoom madame sont mes cliente vraiment content na ci ñoom parce que tey lii là, la lii lépp ñoom la mënoon nañ ko gisee neneen kii mais non elles m'ont accepté xam nga aussi sécurité bi fi je suis vraiment dans un environnement boo xam cadre bi dafa paisible du tamit di nuyu wa wa wa waaw jaxaay tamit nekk na commune boo xam ne ñoom dañ ma bëgg waa jaxaay dañ ma bëgg waaw waa jaxaay dañ ma bëgg rawatina tey le 8 mars nii dañ ma ne noor bu doo dem fenn dangay ñëw biir jaxaay ñu sargalal la ñu sargal la mbootaayu jigéen ñi xam nga vraiment mu nekk loo xam ne gis nga Pod am na fooy toll du xaalis am na fooy toll du du xaalis du tur mais yëg-yëg la bés bu toll nii ñu ne déedéet jigéen ñëpp.

ci benn la donc euh, African Awards voilà voilà donc euh, dañ ma dañ ma nominé ci catégorie euh, best influenceuse best business influenceur moyen meilleur businessman voilà le 24 mai le 24 mai au Maroc donc lañ may jox sama sama sama trophée donc ñom wa gagné naa trophée bi soxlawul sax ay ay vote <laughs> jox nañ ma voilà dama war a dem euh, Maroc laa ko war a jëlee am na nu muy demee sax ma ma ma ma ma indi leen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen superviser événement bi voilà donc di nuyu waa communauté de d'organisation African euh, awards parce que euh, pays yëpp chaque pays dañuy jël meilleure influenceuse Sénégal ñu ne meilleur meilleur business influenceuse bi dañ koy jox Nabou Dash bu kebe donc euh, ndam bi sunu ndam la dama ni euh, lu waay mën a def ba indi ba mën a indi kup Sénégal baa mu indi médaille baa mu indi trophée a def ndax sunu réew mi mérité nañ ko fii mérité nañ ku mën a indi daal coupe indil voilà nu sommes un pays boo xam ne vraiment ay jàmbaar lañ.

Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amin plaisir partagé merci beaucoup merci beaucoup voilà voilà, donc je euh, Mangi souhaitait une bonne fête de la femme à toutes les femmes du Sénégal, à toutes les femmes d'Afrique, à toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, c'est notre journée. Nous donnons courage, full fighter. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Jigen bu farlu nga bu dee am nga ci jàmbaar di kontaan si waa Dvision di nuyu sama ñaari caméraman yi gis naa leen ay jantal lañ waa Chimère ak Omar vraiment di nuyu samay fii voilà di di wax waa wedding store ñoom Marie ñoom euh, ñoom Ndeye ñoom Mayna ñoom Maria Koura euh, Khady

du ma xamee ci sama doom bi moom dafa nangu liggéey nu ñuy waxee jigéen bu mën a góor la dafa nangu bu ko mbokkam bu yaayam chaque jour sax da koy wax ci internet bi inde trois sama yaay sama yaay xiifuma maruma dafa may toppatoo ba mu doom ni muy toppatoo yaayam maa koy ñaanal rekk yàlla yaa ni yàlla guddul sama doom bi fan a mm. wér yaram parce que man damaa timide wax bu bari bi moom xaw ma ko mm-hmm. saay bu ma waxee wax seen sama xol bi dee tooy mm-hmm. damaa timide mm-hmm. et sama wax bareewul ko maa ngi koy ñaanal yàlla daal lu ma bëgg lépp si biiru xolom moo ko xam yaa ni yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sama doom bi aw ma fayam seen bu yal yàlla sama doom bi gudd fan. lu mu bëgg lépp. vraiment yal na yàlla defal ci barki Seydina Muhammad. lan la la mës hmm? la la mës a defal loo xam ne neex na la ba fi mu toll nii boo ko xalaatee. waaw di ko gën a ñaanal. mooy jour bu ma dugaloo ci kër. jokuma caabi bi troisième étage. Hmm. mun na yaay kër bi yaa ko moom. jour boobu nelawuma nelawuma. comme saay bu ma waxee seenab en général sama xol bi dee tooy comme man damay dama koy ñaanal rek yàlla yal yàlla bàyyi ko ba ci kanam lu may defal ni doomam mu defal ku lu ëpp loolu aw ma fayam sama doom bi macha allah tubaraka la ñàkkuma dara maa ngi sant yàlla bu baax a baax quatre quatre ay oto yu cher moom rek laay dawal comme fof rek la yam bi suñu suñu suñu suñu suñu suñu mhm. suñu euh, jour là de toutes les femmes du monde muy mak muy xalé mhm. donc euh, c'est ça quoi lo rek la bu ko wax ci na sama xol bi dafa toy sama sa xol bi dafa toy jërëjëf yaay booy ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm damay jékkul dégg nga ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yaay booy jërëjëf jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup boy ma ngi lay nuyu bu baax baax mbaa ya ngi ci jamm eh, dama la doon laaj ci diggante Nabou mi nga xam tay mom lañu la ñu ñëw mhm. ngir defal ko spécial 8 mars mhm. ci diggante mom ak yaayam mhm. lo ci xam ci mom ak yaayam mom nawdas sama yaay gis bo présenté wu mm, euh, ma ngi lay di nuyu sama doomi di len sante di len gërëm seen ngeen ñëwee fekk ci fekk ci tay ji tay ji nawdas fi fi fii almadi 2 man nak euh, yaay Nabou Dash mooy sama mak khadi Diop xarit Diop papa Mamadou Diop ak sama papa Faly Lo démb la woon tey sog a ñëw yaay Nabou Daas di yaay ju baax yaay ju mat yaay xarit Diop mii tey gis nga liggéeyi ndey añu doom waaye day fekk doom ji màgg am jom waaye Nabou am na jom waaye jom ji nabu da koo doon ci ndeyam ak ci maamam nabu yaa Nabou mii Nabou yaayam xarit Diop toppatoo na Aminata Diop toppatoo na Mamadou Diop képp ku bokk ci xeetu papaam xarit Diop toppatoo na la Khadijo mi tay mu yaayam mu ngi soxi ko ca Kinshasa sëy moo ko indi fii xadi lépp lu mu am mu ngi koy mu ngi koy yónnee mbokk yaay mi fele ca Kinshasa ko kon nabu tay bu topé toppee tànk yi daf ko war a daf ko war a topp parce que nag nabu li li def dong moom la def ma ñëw nak tuuti si sama doom nabu nabu daas tay mom tay buñ naan journée internationale de la femme buñ doon wut tey jii ku ñi coaché nabu la xale bi amna jom nabu amna fula nabu baxna Nabou yaru na la grande battante macha allah yal na ko yàlla fal cat macha allah dañ koy ñaanal yàlla xale bu yaru xale bu am itte ci nit xale bu respecté yaayam xale bu respecté ay nijaayam xale bu respecté ay mbokkam na Nabou bu Nabou ku ko xool bàyyee ko ni ko yeboon ko ñaanal. ku yeboo na nga ko bëgg ndax ndax nabu jàmbaar la nabu liggéeykat la nabu da ngay ñëw ba deux heures ko ci magasin muy liggéey soo ko nee lan la mu ne non suba fête dama am ay commande xale bi sonnul taayiwul dalay day taagu voyage say dem benn dëkk pour jënd mu jóge fa bu bu taalee fii bu gisee leneen lu rafet mu yaakaar ni looloo dàq rek nabu dem na xale bu ndaw boo xam ne amul benn temps ndax liggéey nabu am na jom nangu na sonn dañ koy ñaanal yàlla xale bi yàlla na ko yàlla defal jàmm nabu yàlla na ko yàlla suturaal Nabou yàlla na gudd fan ñaari bantam ñaari bantam yi ko yàlla may lépp lu mu defaloon yaayam ñaari bantam yi yàlla nañu màgg ba ba ñu ba ñu aw ko aw ko ci kaw addina ñu ngi koy ñaanal bu baax kontaan nañ ci yéen ci interview bi ngeen ñëw ni ah, ah, et aussi euh, j'en profite mm-hmm. journée internationale de la femme mm-hmm. maa ngi souhaité bonne fête à toutes les femmes du monde yal na leen taxawu jàppale leen def jàmm kontaan si yéen ni ngeen ñëwee fii tey wasalaam kontaan nañ seen jërëjëf merci beaucoup merci du sens médit la toog ba gox bi nga nekk ñu la ciy woo di ci sargal loolu noonu sant yàlla bu baax la ni mu sant yàlla nag lépp nag ci ci waajurum la olof yaay nee na ni nga gis sa ndey di def rek moom ngay def ndax yaayam liggéey la xam fonk ay waajuram ci la ko yar ba mu gimmi kon bu defee lu dul leen lu loolu rek ñun taf ñu jaaxal nangoo liggéey bi ci yaayam la ko gisee moo tax mu di ko def tax yaayam fonk na ndeyam respecté na ko xam ne moom mooy kan kon nak bu nabu bu di defal nonu ndayam ba tay ji ñukoy sargal kon loolu nonu du sens mérite la jambar na nangu naa liggéey soxlawul dërëmu kenn ñaxam rek lay dundé dama koy ñaanal yalla mom mo xam lim bëkk ci xolam yalla nako ko defal parce que rek ni la parce que ah, ndayam liggey la xam maamam mi jur mi jur ndayam liggey la xam kon nak bu lu liggey rek wacc wacc na yoon kon xam ñun luñ koy ñaanal ñu koy ñaanal fa fan gudd yalla fa ko ciat rek lañ koy ñaanal ba fepp fu mbeug yegg rek yalla ko fa yalla yeggale lepp lu mu defal ndeyam rek xeb nako lepp lu mu defal ndeyam xeb nako ko ngi koy ñaanal yalla mom mo xam ne bëgg ci xolam yalla ko yalla defal kontaan nañu lool kontaan nañu fa yam nañu sha allah sha allah jef kontaan nañ ci sargal bi de sargal bi dañ ci kontaan lool motax ñu wax jërëjëf na nag ñoo jërëjëf. national newatul national ba tax na rakam frère am xaritam bu baax muy Talla Diazaka di doomu Mame Gour Diazaka ah borom Diazaka lisé xale bi nga xam ne fi mu toll nii mooy ñëw ki dafa ñëw tey ci xew mi daal di ànd ak nga xam ne moom mooy Nabou Dash ko ci bis bi nga xam ne mooy loolu mon frère Talla Diazaka booy Diazaka lisé DJ Pod Star waaye mu waay. ba di jabar as jabar. ci loo nekk bàyyil sama jabar. te ma def. booy namoon naa la. waaw bak sëñ Tuubaa ma raw. maa ngi ko bagage yi maa ngi nuyu Sénégal mais lépp tranquille xam nga yow yàlla dafa dogal ni suma xarit nga. nabu naboo ngoog ana nabu. waaw nabu nabu na donc tey di am contentement ak ak ak ak ak ak gisaat la ak fierté parce que tey la 8 mars. di wax bonne fête à toutes les femmes. jigéen moom ren la quoi. donc rawatina suma jigéen suma xarit nabu bi nga xam ne tey moom la ñu war a sargal donc ñëpp xam sama diggante ak moom Sénégal ak bitim réew ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre donc duma def lu dul mën a teew ah ñu waxtaane ko rek ñëpp kontaan. naw daas da ngeen yàgg yéen ñaar sargal bi tey ñu koy def il faut il fallait que nga teew ah, ah, ah, man man yëg-yëg nga am ak taala ba nga jàppee nabu wa tey lan moo tax bàyyi woo waaw nit ku baax la xam nga nit moom soo ko wul xamoo ko euh, euh, doo xam jikkoom bu baax a baax Euh, man j'ai j'ai appris à connaître Nabou bu baax baax ma xamné nit ku baax la nit ku yaatu la nit ku bëgg dëkkam la té nit ko xamné aussi dafa créer ay employés fi ci réew mi di ay dom jambour yi nga xamné ci mom lañu ñu pour dund donc nit la ko xamné man je l'estime beaucoup et que suma jigen la et que Sénégal mom nañu xamné man ak Nabou Pick ak Pelle la c'est ça donc voilà c'est ça c'est ça lolou la mëna wax tënk ko quoi mu gàtt quoi mais mom ñëpp xamné ni suma xarit la quoi lolou mom lolou la yalla def mooy euh, li nga xam mooy 8 mars bi euh, muy bésu jigéen waaw moom moom yaayu daara la sa yaay la mm. suma yaay la yaayu ñëpp la muy sama sama yaay maa ngi koy wax je maa lay ñaanal gudd fan ak wér ah, ba nga fekkee sunu njariñ ci barke Cheikhul Khadim incha allah. ayca booy kontaan naa kontaan naa. jazakalise jaajëfate. <laughs>